mooy réew moo xamante saa yu ñu dañoo war a ñaan muy am jàmm. dëgg du rombi nopp. mais dafa mel ni dafa am ñu nekk ci suuf di yee fitna ci réew mi rek war a dindi. góobu ne nag dina neex a dindi ndax ay problème yoo xam ni. doo xam noo koy lijjanti. ay takkal yoo xam ni. loo xam noo koy réglé. loo xam ne réew mi yépp. lijjanti nañ ko. lu xalifa général yi ñaan ne nañ ko fi teggi. ñëpp ñaan ba lépp daj nit ñi moom ba ñëpp delluwaat seen activité. nga ne da ngay yeer fitna pour lan. xanaa yëpp sénégalais yi. c'est bizarre. ñoom dafa mel ni nu ne nu ne la ñu suñu biir di yee fitna. dañuy yee fitna nañ leen jëlee suñu biir. ñenn rek la nag muy ñi gën a tey di wax. ki gën tey di wax loolu pour lan. nee na da day wax. wax yi muy wax nii pour lan lu dul yee fitna. mais sax booy wax ak ay nit un an onze mois. heure boo génnee wax sénégalais ni la da ngaa complot nga mën seen xel ni complot am na. pour ñu génne seen xel moom lu mën leen a wax récolter xaas mu yaakaar naa ci moom la gënoon yéemee dem sayal ko comme ni mu ko doon waxee. mais yow aji est ce que xam nga li si yee fitna sax. xaw ma si dara. ba pare si kilifa diine wax nga yow daal ala mukk yow doo bàyyi. fi max na nekkee benn. kooku sëriñ si seen place nekkul foofu. maître nga ni. fi max na nekkee benn. kooku sëriñ si seen place nekkul foofu. day man maa wax ak yow ñun suñu réew mi kenn du ko taal de. réew mi kenn mënu koo taal may ñu jàmm. wax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 maa ngi ñaan justice def liggéeyam. buñ la tooñee. na justice def liggéeyam. mag mu rey moom yàlla ñu ci yàlla musal. comme que nee nga dañ laa moo tax mu bëgg nga wax ma ñaata yoon loo xamante ne man mii sax jàpp ma ko. waaw yow nga ne dañ laa violé te xam ñaata yoon lañ la violé. <laughs> je préfère garder loolu pour man. mi aji yaa mën a duul aji ay duul dayam harmonie. n'est-ce pas yow yaa ne coca cola day yàq biir.

pointé uma arme de. nga ni. pointé uma arme de. mais attends Adji sa avocat waxul ko ba pare. Hmm. nga ne ko tonton pare nga pare naa mu ne non pare gu. lu mu laaj leneen. nga bëgg wax mu ne boo waxee jënd ay pistolet. pointé uma arme de. nii la ñu yàlla bindee dañuy wër di fen rek. Cheikhul Ibrahima Baba Lamine Diassé. ma foog ne bu la violé si yoon dangaa war a dem yoon orienté la hôpital mais aji yow dafa mel ni hôpital nga njëkkee de. instant boobu mu ngi nekkoon mu ngi. toll woon mais non waay maître bul ma yàqal amul yàqalaate waay. bu fekkee ne li nga ko wax da koo mokkul nga ñëw nga sëgg mu bàyyi. man lolou moma jaxal nak nag Adamo. liñ leen tegal du direct. kon lan la. ben vidéo la bu du collage montage ko Adji sa ay écouteur yu wex la tak lolou nak sank xawna tay sama xel ndax bima ko poser question diko ko laaj ndax da nga am xol réaction bi mu def fi rek. sama vie privée la franchement bu ma sey jox ay détails. moom day répéter li nga xamné ni mom moy nek en arrière mom lay répéter di wax. mom sanara pasara pas ok aji lan nga wax capitaine Touré.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 le 2 le 2 février bi nga xamante ne. le 21 décembre yow nga le 2 février. Je xamal leen benn affaire. waaw. aji dafa a fait mën a duul goo <laughs> mais maître yamul foofu de mu waxaat ne. le 31 décembre violer nañ ko deux fois. Mais le 31 décembre Adji Sarr violé nañ ko deux fois. 31 décembre. Son taxawul ci kër gi. mu dellu waxaat ne. ñëw 15 h jël h 19 h tëddee ko ñaari yoon. naa loolu moo nek, ay fen. nii la yàlla bindee dañuy wër di fen rek fen la ñu yàlla bindee ñuy fen jàpp nañu nit day sportif fen naa jàpp nañ ma. xam nga ne télé xabaaru ah, fi wóorutul ah, di. ko wax lu jëm ci sama vie di am ay yenn paroles yoo xamante ne day jëm ci man.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 lu ñu wax lu ñuy wax ko waxee fii kay laa foog ànd ak assurance fii kenn du la lekk kenn rey ngir yàlla xale bi fen day reetaan tuuti ngay may nit ñi sens buñ la mën a ne fen lenn naa leen xamal fen bu ngeen ko tàmmee kon da dem ba mujj gi bu ngeen lu ngeen fen ñaar yeneen fenante seen te commencé na am li mom amatuma dara dara dara lu ci tek teg kay ñi ci dess rek ñi commenter ñun ñun motali ko inshallah bu len dikkee man de li la wax mbay ni lu ngeen wax ñun li nañu mëna wax do ndooyee jaay alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu ko defee suñu mam mën def ñaan amin والقمر